ñun suñu rôle moy gëstu ci mbirum euh, problème yépp am ci aduna mun nek problème santé mun nek problème développement donc dañuy dem jox ko ak nit ñi déglu leen xeyma lan moy sen yité lan moy sen difficulté comme ça ñu bind ay ay rapport pour wane par exemple telle communauté problème bi moy sen problème euh, lan lañu ñu proposé comme solution parce que solution yoy dañ koy discuter ak communauté yi ñom ñokay valider après ñun dañuy ñëw rek tank lu ñu communauté yi pour jox ko ño xamanteni ño ñoo commandité nous boobu ñu def pour ñom xam nga communication ci situation crise comme lu melni Covid 19 dafa euh communication bi dafa am Nous yu bari dañu gis né lolu du Sénégal rek partout la. Euh, crise bu commencé d'abord nous avons une communication def ci kanam une communication euh, horizontale manam autorité ñoy ñooy joxe information ci communauté bi mais dañu xamné ci cycle ou crise nous avons dañuy tollu ci benn moment la xamantene Nous dañu obligé dem discuter ak communauté communication de proximité ak communauté communauté pour xam lan moy sen yité xam lan moy sen difficulté xam lan moy sen bébét ak par exemple so Covid 19 mën tamit recueillir sen perception ci par exemple pandémie bi moy Covid 19 lan moy lan nak lañ ko gissé ñom et puis discuter ak ñom ci solution yi lan la def pour vraiment atténuer euh, Covid-19 donc c'est ce que nous avons fait. donc pour revenir sur sa question euh, communication c'est vrai dafa à un moment il fallait que nous changer de cap Madame ñu commencer engagement communautaire discuter la communauté yi avis. C'est avis avons dafay Andy Benen gis-gis approche départ parce que euh, looy def pour man te fekkewuma ko day melni c'est contre moi donc lolo ta c'est important ñu accentuer légui communication de proximité bi ak communauté pour recueillir sen avis xam ñom lan moy sen mbëbët parce que nit ñi tamit en dehors ci fièvre bi dañu am ay mbëbët dañu am ay difficultés donc il faut que ñu déglu len ak xol ak ñom tabando ak ñom solution lolu lolu vraiment euh, actuellement ci stade cycle de ñu crise bi lolu communication de proximité communauté bi. ministère de la santé donc parce que so crise crise du ministère de la santé manam qui euh, dimension multisectorielle la cest dire tu vois donc tey acteurs c'est pas seulement les gens du ministère de la santé Les journalistes ont un rôle très important socio anthropologie a un rôle très important mais ku la communauté qu'il parce que nous faut la crise de la communauté parce que nous ñoo vivre réalité nous sommes nous dimbali ci solution yoo solution réalité

surtout atelier bi ñu euh, euh, ki buñu buñu organiser ni pour jox journalistes yi ay outils pour ñu mëna contribuer ci communication de proximité boobu ak communauté non bon nous euh, le doy parce que importance communauté bi parce que c'est pas joxe information bi rek doyul il faut que nga toog waxtaan ak nit ñi te léegi je crois que ministère bi comprendre na loolu te ñu ngi C'est ci loolu moo ñun dañuy contribuer renforcer capacité nit ñi pour dem di la communauté yi di waxtaan communauté yi di à la communauté je crois que loolu moo ñu mën a dimbali ba ñu trouver solution ci problème crise bi